الحمد لله الذي الحمد ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna wasalaatu wasalaamu ala asrafi al wa imaami al mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi seetaan ali imran tv asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaayu alquran bi ñuy tuddee atadabbur di ci ànd ak yéen ay bis jot ci waxtu wi di waxtaane téere borom bi subhaanahu wa taala di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu soppe am di jàmm yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel atadabbur waaye di ko seetantal di ci bàyyi xel bu baax a baax di nuyu suñu xarit imaam Aboubacar Traoré saaxibul Qur'an moom la ñuy àndal ci jotaay bi saa su nekk mu ñuy jàngatal eh, alquranul karim waaye ñuy waxtaane téere bi imaam amaan naa mbégte ci feggoowaat ak yow di la nuyuwaat di la bàyyi nga nuyonteeg ñi ñuy seetaan <laughs>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 mboolem émission ci Ali mm. Imran jërëjëf jërëjëf. amin amin amin yaa rabbal alamin amin amin amin amin xéewal yi ne ci alxuraan yëpp mhm. yàlla def ko suñuy poos ñu koy dépassé alxuraan dafa am ay xéewal yoo xam ne mën naa nekk ci poos est-ce étape boo toll rek la mu laaj rek yàlla defal la ko. Mhm. waaw. <laughs> est <laughs> bu dee bu dee loo war a esquiver la moytu ko am na lu mu def sa poche mooy aaya boo xam ne tegal na ko boo ko toppee réussir si. bu dee tamit lu lay yokk la ci wàllu koom tamit mi ngi fa bu dee lu lay yokk ci wàllu xam-xam mi ngi fa bu dee luy ubbi xel mi ngi fa bu dee luy defar addina nit ki biiram ak bitam mi ngi fa. taari ma farratna fil kitabi min shay mhm. wa tafsilan li kulli mhm. mhm. ah, bu ñu yàlla jox wallahi wallahi yooyu yëpp alxuraan da koo da eh, da koo mooñ tibyaanan li kulli shay moom xanaa mooy tolloog lan waaw tibyaanan li kulli shay moom mooy leeral lépp wala mooy solution yëpp wala lan yëpp mooy solution yëpp mooy indi li nit di soxla te mu bëgg mbir ma li mu ko bëggee mu amee ko noonu. Mhm. te du ko indil con conséquence. waaw ci dundam. Mhm. ak ci ëllëgam. Mhm. ak teyam ak ëllëgam. tey jii nii médecin mun na ñëw xool la consulter nit. jox ko ay garab prescrire ko benn médicament wala benn ordinance bu dem jënd ordinance bi naan ko. garab ba faj ko tey mais ëllëgee muy indil ko effet secondaire. wala tey sax mun na ko jural effet secondaire. dëgg la yenn saa yi naan garab bi balaa nga naan waroo nga consulter sa médecin wala yooyu ba xam. jigéen ñi ah, loolu lay doon wala nangam waaw. mais alxuraan lim lay leeralal ak solution yi mu lay jox amul effet secondaire. allahu akbar allahu akbar ci sa dund te ñëpp ko mën a jëfandikoo ñëpp ko mën a jëfandikoo amul xale bi ak mag mi waaw. alxuraan rek ngay gis muy téere boo xam ne du ñu ne ku am niveau bi niveau université wala euh, bac plus 3 wala 4 wala 5. nga war a jàng xam-xam bi ci alquran wala nga war a liir aaya bi wala nga war a gëstu aaya bi wala saar wi mhm. amut amut maanaam mag ak ndaw xale maanaam góor ak jigéen ndeysaan ku mën a doon baykat bi ne ci àll bi nga xam ne toogul ban mhm. toogul ci daara nga xam ne moom àll ba la xam dem bay ñëwaat ci kër ga mhm. toog ci grand place yi wala nekk ci yeneen yitte loolu la xam bu tiimee alquranul karim mën na koo jàng jàng ci loo xamante ne kii ne université ca euh, Boston wala ñu ñu koy waxatee sax euh, bi nekk fële. waaw ca Sorbonne. Sorbonne waaw mooy Sorbonne wala nga nekk Université California wala nga nekk Al Azhar Sharif sax doo ko gis doo ko comprendre. Hmm. moom mu génne ci loo xam ne nan nan la ñuy wax de ah. Hmm. waaw waaw ñu génne waaw maanaam ñu génnee ci. moom loo xam ni. waaw moom mi nga xam ne génne na ci université yooyu du ko gis. wala dëgg la dëgg la. maanaam tout maanaam niveau yëpp. situation ak tolluwaay yëpp ak espace boo mun a dund rek jamono boo mun a dund rek mun nga ci dund ak alquran mhm. ci façon bu extraordinaire macha allah macha allah am na solo imaam am na solo rafet na lool ci delloo googu nga ñuy delloo ci alquran waaye ay bis gii biñ fi jógee damaa waxoon ne danga ñu may ñu tàmbulee tuuti ci waxtaanaat ak suñ bopp mhm. defe naa yéen développement personnel ngeen koy tuddee mhm, ban ban loo ñu ciy wax ci benn minute wala ñaar waaw loo ñu indil tey waaw doomu aadama mooy sel être vivant bi nga xam ne lu mu bëgg rek mun na ko am fu mu bëgg àgg mun na ko mun na faa àgg. ah dara tëwu ko. lu mu bëgg am mën na ko am. fu mu bëgg ñëpp nag. waa acca bu toogoon fii tey mu xalaat ne tey war naa mën a créer loo xam ne ci cinq minutes ma àgg États-Unis mhm. ci cinq minutes ma dem euh, Màkka ci cinq minutes encore ma dem Dubaï ci cinq minutes ma dellu Dakar mu nekk ci yàlla defal ko. Mhm. ngir rek moo am loolu. nit rek li tax mu am loolu mooy yàlla daf koo jox jëmm joo xam ni dafa mot sëkk bàyyiwul dara. Mhm. deuxièmement mu jox ko xel moo xam ni mu ci def ci xam-xam cellules yi rek dañuy ne ëpp na cent milliards de cellules léegi cellules benn bu ne li muy denc ci ay données li muy denc ci ay xam-xam li mu yore ci ay outils yoo xam ne àddina àggu fa xamagu ko découvrir agu ko kenn xamu nu mu toll. Mhm. waaye yemul foofu mu créer ko environnement boo xam ne moo xam da nga ko tuddee asamaan wala suuf. wala lu mu mën a doon lépp nag li ci nekk yëpp ak na muy am am gabarit ak na muy toll yëpp ci maanaa ci poids ak ci dimension yàlla ne dama la ko tàggatal maanaa day dox ci sa service wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian min min wallahi léegi nag li des mooy ngi oh. effort effort bi muy def rek ak temps bi muy jël pour exploiter ko mën jëriñoo li ko wër ci espace boobu. la mm. loolu moo fa des. dëgg la mais nit amul limite yàlla utalu ko limite. walla kon ku kon ku limite rek. Mm. yaa limité sa bopp. yaa limité sa bopp. ci lépp nag. Mm-hmm. may lépp dafa laaj contexte ak jàngat. ak jàngat masalan tey. Mm-hmm. nit dina juddu doon pauvre. Mm-hmm. amul dara. fekk ay parents yoo amuñu dara. mais ci ay effort yi muy def. yàlla ubbil ko loo xamante mun naa doon mun naa doon milliardaire. nit dina juddu tamit fekk ay parents yor lu ne. mu ñëw ci sàggatem ak ci ay comportement mu ñàkk milliards yooyu yëpp. mu mm-hmm. yàq ko ñu ne mm-hmm. ay kii de pourtant ay baayam wala baayam ni mu fi bàyyi mais yàq yëpp yàq nañ wallaahi wallaahi kii de bi muy juddu de xar bañ ko ngénte sax amu ko mm-hmm. waaye xooloo tey jii ni mi ngi yóbbaate màkk guddeeg bëccëg waaw loolu nag dégg-dégg la laaj yabsutu risqa liman yasha wa yaqdir boobu nag loolu dafa laaj dégg-dégg boo xam ne tey jamono war na koo firi dëgg la dëgg la ku mel ni tey Bill Gates ci wàll développement personnel waaw daf cay wax lu am solo loo xam ne lan waa maanaam àddina bi war nañ cee jànge hmm. waa daara tamit war nañ cee def taxaw seetlu bu baax a baax ñenn ñi mun nañ tam ñu jël ay aaya sànni mais hmm. noo du nuy nii la mais dafa laaj dégg-dégg hmm. mooy bi muy wax ni if you born poor it's not your mistake but if you died poor it's your mistake tey waajile mu ne lan boo juddoo ci pauvreté waaw mu ne du sa faute du sa fut de. defoo ci dara. defoo ci dara loolu laay faral di wax de vraiment <laughs> parce que yow demandé woo pour juddu. demandé woo pour juddu léegi nag léegi nag léegi nag lu mu wax waaye nag boo deewee ci pauvreté. yaa ko def sa bopp sa faute la <laughs> boo juddoo ci pauvreté. waaw defu maanaam du sa faute. du sa waaye boo dee ci ci pauvreté. sa faute la sa faute la waaw. <laughs> parce yàlla nee na maa la ubbil buntu yëpp. Mhm. ah lan la wax ci ay al alquraanu karim boo demee ci suratul mulk. Mhm. la. هو hmm. الذي جعل لكم hmm. الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ay ji ay ji yéeme na dafa yéeme waaw man maa leen tàggatal suuf si jaala lakum al arda zalula zalulan hmm, famshu kon famshu famshu dox leen waaw xoolal dox bi waxul daw leen déedéet ànd na ak sago waaw wuti voilà <laughs> tasaaroo leen ngeen ànd ak sago te dem wuti effort boo leen def waaw famshu jox leen famsu fi manaakibihaa wa kulu min rizqihaa waaw allahu akbar wasaare naa ko ci suuf si wërsëg waa ngi fi xëy leen ngeen wuti ko xëy leen ngeen wuti ko wa ilayhi nusuur nag moom yàgg yàgg da ngeen di ñëw ci man ngeen jëm boo boo lay woo nga ñëw jaamu jaamu ji ko moom waaw waaw dala fekk secteur activité lay mhm. def effort moo mhm. la mu ne ñëwal nga ñëwal mën la dellul isaa nuudiya li salaati min yowmi aljumaati fasaw ila zikrillahi wasarul bay a buñ noddee bàyyi leen activité Euh, commercial yi ngeen nekkoon. nga xam ne dafa jàpp ne ca nga war a nekkoon. ngeen ñëw julli si. bi ngeen noppee mu ne fa isaa xudiyati salaatu. fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah. allahu akbar <laughs> door a wax ne waskurullaha kathiran laalakum tuflihun moo tax koo gis. mu ne day yàlla doon te alxuraan wala ñàkk am pouvoir mën doole doolee àddina hmm. xamal ne ba léegi des na dëgg la déggam alquran des na wallaahi des na saxaaba yi loolu lañ comprendre doon hmm. ñu téye économie àddina hmm. xoolal euh, defe naa Abdourahman bu aw awf la kan la ci woon ba muy jógee madi euh, Makka jëm Madina wallaay dafa bàyyi ay milliards ay chiffre d'affaires am om kii wam yëpp la ko bàyyi ba mu ñëwee euh, Madinatul Munawwara ñu bëgg koo jàppale mu ne non non wan leen ma marché mi rek. Mhm. parce que man am naa technique. waaw de leen ma marché bi ma xëy rek parce que bu ma xëyee ci marché bi danaa am lu ma def. ku xëy dem marché am loo def. waaw <laughs> allah am na solo Imaam jërëjëf ci bind boobu ci wàllu ni nga ko tuddee. Mhm. Euh, loo ñu indil ci alxuraan tey fan lañ taxawoon. waaw ñi ngi taxawoon ci aaye bii nga xam ne mooy aaye numéro 71. aaye numéro 71. ci suratu Yaasin. suratu Yaasin mooy numéro 36 ah. waaw donc Yaasin ñaata aaye la 83. du gone. waaw du gone de. waaw 83 mag la. <laughs> waaw waaw ah, dundu mag la. <laughs> macha allah. ndeysaan ayca bismillah nga jàngal ñu ci tuuti. Mm. bismillah awalam yaraw anna xalaqna lahum ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون الله وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لسان. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون لسان. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون laa yastatiicuuna nasrahum wa hum lahum jundun muxdaruun falaa yaxzunka qawluhum inna naclamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun allahu akbar allahu akbar aay yooyu lañ jàngatoon bii weesu lañ jàngatoon falaa yaxzunka qawluhum inna naclamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun awalam yaraw waaw awalam yaraw dafa jara def taxaw seetlu. ayca bisimilah imam yàlla dafa bëgg ñuy xool di gis. Mhm. bëggul kuy xool te doo nangu gis. nangoo gis dafa bëgg ñuy xool di gis. Mhm. di xool di gis. Mhm. gis bi ñaar la. gis ñu ñuy jëriñ ñu jëriñoo ko. gis lu ñuy jëriñ mu jëriñ ñu waaye ñu ñu fàttaliku ka tax ñu gis wala la gis tam jëriñ bi mu ñu amal kaka def ba ñu gis. ba jëriñ lu am solo la aussi. waaw dëgg la loolu la yàlla bëgg. dëgg la awalam yanduru fi malakuti samawati wal ard wa ma xalaqa allahu min gis nga mhm. maanaam doonul ne dafa bëgg rek ñuy romb mbir yi te duñ ko xool léeg-léeg dafa bëgg ñuy xool yëf di ko settantal di ci taxaw di ci taxaw mhm. waaye gis bi ba ñuy yam yam ci la mu bind maanaam mhm. ci al al al maxluuq mu dem ci alxaaliq wallaahi xalaqa tilka al maxluuqaat wallaahi wallaahi am na fu muy wax awalam yaraw ila tayri waaw walam yaraw ila tayri fawqahum saafaatin wa yaqbid waaw maa yumsikuhunna illa arrahman innahu bi kulli shay'in basir ci suratu mulki suratu mulki boo demee ci suratu nahl walam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah booy wax li day mel ne avion ngay wax avion lay wax waaw te xam nga picc la doon waaw bii avion bii lay wax dañ am waaw waaw mais mais moo tax alxuraan yéeme na dafa yéeme bi muy wax lii ñi mu ko doon waxal boo doon misaal avion ci ñoom dañ naan la loolu mënta nekk dana mënta nekk waaw luy naaw ci jaww ji yëpp ay mhm. nangami nangami kenn xamul sax li mu yab nu mu toll ci ay tonnes avion ñi ñi dugg ak seen i bagage ñëpp bu ñu la waxoon bagage yi ni mu toll mu yab lépp wa dallalnaaha lahum yabaale lekk yi ngeen soxla yabaale naan yi ngeen soxla waaw ñi bëgg a dem wanag am na fu ñu dem dem fa wanag te duñ ne fees na ba dañ koy tëj eh, bagage yëpp dugg ba mu des mm-hmm. mu ne fëy yi di naaw ci jaww ji ba dëkk sàngam loolu ay waaw borom bi ne maa yumsikuhunna illa allah xam nga foofu waaw illa rahmaan ji laa bëgg a wax xam nga maa yumsikuhunna mm-hmm. waxut illal qahhaar waxut illal jabbaar waaye il rahman la wax <laughs> ki ko téye mooy ki leen yërëm <laughs> waaw ki téye ak xool nga loolu waaw ci sama yërmande googu waxul ila rahim waaw <laughs> yaa ngi seetlu li may wax euh, su ma juumulee Muhammad Mutawalli Sha'ra yi mas naa wax lu mel noonu na bu waxoon maa yumsikuhunna illa rahim illa rahim yéeféer bu dugg avion mu daanu mu daanu waaye xoolal maa yumsikuhunna illa rahman illa rahman allahu akbar ci yërmandee rahman ji mhm. moo tax ngeen mën a def loo maanaam wasaxara lakum yi am ci alxuraan xam nga dafa bari yàlla ne maa leen tàggatal wasaxara mm-hmm. lakum layla wan nahaar wasaxara lakum eh, eh, maanaam al fulk waaw waaw yëpp maa leen ko tàggatal maa leen tàggatal mm-hmm. géej gi mm-hmm. tàggatal leen jant bi maa leen tàggatal guddeeg bëccëg maa leen tàggatal avion comme ni nga ko waxee nii léegi yëpp mu ne maa leen ko tàggatal waaye ki ñu tàggatal loolu mooy arrahman imaam loolu awalam yaraw ab jullit waru ko romb rek di dem waaye settantal xam nga mm-hmm. aaya jële borom bi di wax mm-hmm. sa nurihim ayatina fil afaqi waaw sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq masha allah <laughs> fussilat fussilat xam nga danaa leen woon sama bopp mm. loolu lay tekki sa nurihim ayatina danaa leen woon sama bopp danaa leen woon mandarga yooyu tax ngeen xam ne man rek maa yàlla loolu nag mu ne danaa leen ko woon ci mhm. eh, eh, mm, fil afaax maanaam ci gox yeeg gox goxaan yi foo xool yàlla nee na boo seetantaloon gis ma fa foo xool rek boo seetantaloon gis ma fa mooy li nga wax léegi awalam yaraw waree sut a gëmm rek di dem parce que gannaaw loo xool war faa gis yàlla kon fooy xool war ngaa seetantal ba gis fa yàlla mu ne la boo amut jumtukaay mm-hmm. tukki mm-hmm. xam nga tukki da ciy xame lu bari da nga ciy jànge mu ne wa fii an anfusihim mm-hmm. seen i jëmmi même sa jëmmi bopp ji tax awalam yaraw boo ci seetantaloon gis ma ci <laughs> wa fi anfusikum afala tubsirun allahu xool leen seen bopp mu ndax yéen du ngeen xool mu ndax yéen du ngeen seetantal imaam loolu am na solo bismillah moo tax doomu aadama warta doon euh, ñu koy waxee sax gumba gumba waaw dëgg la waaw warta mun gumba waaw summun bukmun umyun ñoo ñooy gumb dëgg-dëgg. Mhm. mais kii jubdu ñàkk ay bët kooku du gumb. déedéet am na lañ koy tuddee. wallaay silmaxa silmaxa lañ koy wax waaye ala kulli xaal bët yaa ngi xol baa ngay gis. waaw Serigne Moussa dane borom xol bu gumbaaraw boroom bët yu fettagul waaw waaw <laughs> yëral aji laa taama eh. kon nga xam ne bët ya gisul dara walaay eh, ki ñuy wax euh, Cheikh Abdoul Hamid Kishk waaw ah, ndeysaan gis nga histoire ak na mu demee ba ba silmaxa walaay walaay xanaa xamoo ne imaam mhm. am na silmaxa yoo xam ne mhm. silmaxa gi xéewalu yàlla la mhm. ndax ñoom yowmal xiyaam kenn du leen laaj bàkkaaru bët ndeysaan waa ji musaafir ma alquran waaw naa laaj benn xale ci Égypte laaj ko mu ne ko yow li nga ñàkk bët mbaa kii wala daal nekkul lu la mhm. gêné mu ne déedéet damay ah. sant yàlla ah. ndax ëllëgee yàlla du ma laaj bàkkaaru du ko laaj bàkkaaru bët te man naa te xool xool baa ngay gis xool baa ngay gis xool baa ngay gis ne jar xam nga sama xarit hmm. bële Mouhamed Tine ca caajaay ndeysaan borom alxuraan nga xam ne dafa silmaxa imaam mhm. man daal damaa yaakaar ne li nga naan awalam yaraw dañ jur seetantal yenn kaa yi <laughs> xoolal xale boo xamante ne ba ngay sàmm nga silmaxa mhm. jàng alxuraan ji xam ne yaa defal yitte sa bopp loolu moom mayu yàlla rek la. dëgg la mhm. mokkal ko mokkalin woo xam ne ñun ñu yori bët mokkale ko noonu. maanaam boo ko laajee aaya sax mu wax la paas ba mu nekk ca mhm. ca fooy waag. aaya ja ca kaw la war a nekk ak ca digg ba la nekk ak mooy aaya nangam. <laughs> baat sàngam ci aaya sàngam la jëm. ci koo xam ne sa bët yi mës sa tegu ci mbindum alxuraan. xam ne feroo ijji. <laughs> bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladina léegi nag ki yor ay bëtam di xool te seetantalut yi ngay wax nii. Mhm. waaruwut xamu ci lu baax jéemu cee xam boromam kooku daanaka dafay xoole waaye dafa gumba dafa mhm. loolu nag suñu borom bëggul nag ñu mel noonu déedéet bëgg ñu yeewu wallaay yeewu intellectuellement nag mhm. waaw mhm. Euh, am na koo xamante ne day yaakaar ne dafa dafa yeewu te yeewut xol bu gumba baaxul xol bu gumba baaxul wallaay yal nañu ci yàlla musal kon awalam naa xalaqna lahum mimma amilat aydina aydina anhaman fahum laha maaliku léegi firil ñu ko noonu benn par benn waaw xanaa xanaa gisuñu anna xalaqna lahum mimma amilat aydina anhaman bind bi ma leen bindal ci lima ma maanaam ay anam mooy niñ koy jur yi mais ci sama loxo laa ko bindee mais boo ko doon firi tey jii ni boroom xam-xam yi dañ la indil ñaari thèse ñii naan yàlla dafa bind anaami ci loxoom. Hmm. ñi naan déedéet bind ko ci loxoom. kenn la bind ci loxoom muy aadam mais à part aadam ñeneen ñëpp ci kun fayakun ci xam-xamam la leen bindee. ndeysaan am na ñuy wax loolu. Hmm. donc yàlla pour jox gëdd ak valeur lam lam ñu jox ci ay waruwaay moo xam yoo xam ne waruwaay naturel la. ak hmm. yoo xam ne c'est niñ koy koy waxatee sax matériel la. mu ne yëpp moom ci mbaaxam lañu ko joxee mais li ci gën a yéeme moom mooy fahum laha maalikun dama hmm. leen ko jox ngeen moom ko kii naan maa moom xar ma kii naan maa moom nag ma kii naan maa moom gëléem ba kii naan maa moom fas ma hmm. kii naan maa moom mbaam ba hmm. te mbaam ba moom bindul mbaam ba wallaahi bindoo ko ba pare fahum lahaa maalikun nga moom am ci sañ-sañ lool ñu moom ko waaw sañ-sañ koo rende léegi waaw waaw sañ-sañ rey sama xar naahaa lahum ma daal leen ñi tàggatal ñeel leen mboolem xeetu waruwaay yooyu wallaahi wallaahi ñit taxaw benn ñit kese yore téeméeri gëléem junni gëléem benn yat bu ndaw lay yore ah. di leen wommat ñu jàpp ko neex wallaay wallaay wallaay <laughs> imagine ñoom ñu amoon xel la ñu ne noonu mais waa ji yab yabuñu te ñoo ko fëlëx rek mu dem nga hmm. wextu gëléem wallaay yii saa bu kii jéem laa waaw te xool ni mu xoolal ni mu lewete loolu ni mu koy yeex a defee allahu wallaay xoolal maa leen ko tàggatal maa leen ko tàggatal xoolal eh, waaw nit di tàggat ah? nit kay ba mu tàggatee ñaay ba man koo war <laughs> waaw nga xam ne pooj ma rek dama dem euh, Égypte euh, dëkk bi ñëw al Iskandariya waaw Iskandariya wala naam benn jardin bu fa nekkoon parc la boo xam ne dafa am ay animaux benn ñay ñu ne man ñay bu ndaw la pourtant <laughs> mais may yéeg ñay ba waa ji da koo kii ba ñay ba kii waaw day wax moom ba mu tëdd ba mu tëdd léegi pooj ba rek pour mu yëkk problème la <laughs> te bu ndaw la pooj bi bi mu fuuf gis nañ ma bi ñay bi jógee ba taxaw sama fit bi dafa waaw mi ngoog nga xam ne rek te borom bi nee na maa leen ko tàggatal wa dallalnaaha lahum mhm. fa minha raqubuhum wa minha yaakuluun mhm. ñaari gën a yéeme ngi nii mhm. nga war ko teg ko bagaas yëpp mu fa sax de nga gis kuy dóor teel bip bip te ba moo ko mun wallahi wallahi waaye yemu yemu fa wa minha yaakuluun xoolal gëléem doole ba mu am xoolal yàpp yi fañ leen di jëlee mhm. nag yéeg yooyu mhm. doole ba ñu ak gabari ñaata ton mhm. yàlla mën a mën laa may yow nga ñëw fekk ko tàggatal ñu ko tàggatal ko nga koy jëriñoo ci war ko waaye ko jëriñoo tamit ci euh, jëfandikoo si yàpp ja bañ koy rend bañ koy euh, fees ak yooyu yëpp ma xool cey cey ñun lii lépp nag ñu koy romb di dem rek ndeysaan <laughs> ndeysaan bu riposté woon àdduna tukki te lépp dañ koy romb rek ànd ak moom di dem walahum fiha manafiu wa mhm. masharib mhm. afala yashkurun afala yashkurun waaw ah, ñu am ci manafi ay jëriñ ñi bare bare yamul wa min aswafiha wa mhm. awbariha wa ash'ariha athasan wa mataan ila hiin allahu akbar nga xam ne euh, karaw beeg même tànk yi euh, xor ya ñu koy mhm. waxatee waaw ndeysaan bëjjën yeeg allahu akbar euh, bëñ yeeg mhm. kii ñay surtout kii wom yooyu waaw bëjjën yi bëjjën ya bëjjënu ñay yi yëpp lañuy lañuy lañuy lépp amal ñu njariñ lépp amal ñu njëriñ yi koy def mbubb di ko sol yi ñu koy def ay der di ko def ay ay fauteuil wala ay euh, fourniture wala salon wala meuble wala leneen ak leneen ak leneen allahu akbar yàlla lim yàlla wàccoo naa ñun wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha wallahi buñ doon wuñ xéewalu borom yi bu ngeen ko doon lim mënu leen koo jeexal mënu leen koo dajal ndeysaan afala yashkuru afala yashkuru xanaa du ñu sant ndeysaan delloo njukkal yàlla ne alhamdulillah hmm. alhamdulillah alhamdulillah wallahi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah <laughs> ala kulli xaal waaw alhamdulillah ala nicmatil islam yàlla daa bëgg ko koy sant afala yashkurun wallahi waaw afala yashkuru xanaa du ñu mhm. wa waaw ñëwoon na foofu afala yashkuru demaat ci suratul waaqiya tam mu ñëwaat ay yoon afala yashkurun afala yashkurun mhm. ñun waruñu woon xaar sax yàlla ne nañ ko sant mhm. ñu ñoo waroon am conscience ne dañ ko dëgg la parce que parce que nag ku yëg lim la defal war koo sant problème bi kay mooy awalam yaraw gi ndax ndax ndax du ngeen jéem a xool seetantal ba yëg li ma leen defal waaw wala wala da ngeen koo jàppee lu banaal rek loo xamante ne nii effet effet naturel la yoo xamante ne dafa amal boppam noonu wala da ngeen a war a jàpp ne war ngeen cee xalaat mhm. settantal ko bu boobaa da ngeen yëg ne war ngeen maa sant léegi nag loolu lañu war a ku toog xalaat li la yàlla defal mhm. da am kersa ci kanam yàlla kersa ci kanam waaw imaam damay faral di wax ne nit daa war a tegoo ay coonay xalaat bu bëgg yàlla maanaam xalaat parce que bu xalaatee li mu ko defal mu bëgg ko ndax day xam ne moo moo ko gën a bëgg ñëpp mhm. moo ko ëpp yërmande ñëpp léegi yow itam da ngay dem mu yàgg da ngay bëgg yàlla te ñi bëggoon yàlla te muy dëgg dañoo dem ba rus yàlla waaw nga xam ne ragal gi mhm. rus gi da koy ëpp dañ koo rus yàlla <laughs> xam nga foofu ci la ñu baax ñi ci wàllu tasawuf doon àgg ba ne jaamootuma yàlla ngir bëgg a dugg àjjana mhm. bàyyi ragaluma mooy yàlla ngir ragal sawara waaye da koy def parce que dafa rus yàlla dafa dem ba mu yàgg waaw xarit xaritam la maanaam ku mu la mhm. ku mu la nga xam ne dafa dëkk ak moom ànd ak moom euh, di ko dund mu seeyal boppam ci ci jëmmi borom bi subxanahu wa taala loolu imaam tolluwaay la boo xam ne awalam yaraw gi moo la ciy yóbbu. Euh, ak it di xool xéewal yi la yàlla defal bi nga tibbee sex sax xami wan na. yëg ne doo jàmbaar. parce que voilà du sax njàmbaar moo ko def. bi nga ko wannee mu dem. bu fa toogoon 48 heures yoo xam ne réesul nga faa wala wala docteur yi ñëpp amu ci yoon di xotti ngir mu génn yàlla montel ko ay appareil damaa dem visiter benn usine boo xam ne. usine fer da ngay gis bu ñu indee weñ yi fi ñu koy dugal ni mu koy toggee fi mu koy paasante fi muy génne <laughs> fi muy nekke lu ñor mu di ko dagg ba feer bi génn am yoo xam ne mbalit la mm-hmm. am yoo xamante ni ndox mu ci tuuroo la leen lu ne dem fa muy dem pourtant imam usine bi ngay doxee yow ma di ko doxee moo gën a compliqué boobu <laughs> noonu lañ ko mooñee te man yëguma fu ñu ko mm. defee ki koy entretien du ma ko yëg mi ngi ma koy alimenter gratuite may lekk di naan muy reexal di génnee di tuur ay ati ati ati at xol bi naan tëf tëf tëf tëf bu taxawoon benn seconde waa ji faatu te ci deux waaw ci lay commencé waaw mi ngoog mi mi ngoog te li koy baatareeloo man sama yoon nekku ci ki koy baatareloo moo koy baatare muy pompe sama deret ji may daw di fo léeg-léeg may pàkkar ñi di fecc ñu tëbaka dal di caddi caddi ba doyal toog ne saay ah yëpp rek ki la may kàttan googu mooy borom bi subhanahu wa taala arrahman moom di la xool ni nii bàyyi la xel naan la góorgóorlu nag nga fàttaliku ma ndax da ñëw temps bi ma la jox nii day mm, jeex te bu jeexee da ñëw te dama koy évaluer loolu mat naa bàyyi xel yaay ma bàyyi xel mm-hmm. eh, bi ngay tàmbali yaa ngi wax eh, benn waaw benn tib tib tib boo sàkkame waaw tibb ceeb waaw njaayeen ni nañ ma baal ceeb boo sàkkame rek waaw logistique ba mu jaar yëpp yëpp ba gën cee mën a jënd boo ko jàngatoon da nga yéemu ci yàlla buñ ko si tegoon doo ko mën a jënd wax nga dëgg de fitib bi jaar waaw yàlla boo ci dagg carotte def ci tuuti suppame waaw laal ci basante laal ci ñambi waaw dagg jën def ci dagg ceeb mhm. léeg nga paccal ci limon waaw euh, sëñ bi door a door a dank seex yii yëpp dajee ci tib bi fi mu jaar ba ak si imam non moo tax awalam yaraw faw ñuy xool nga xool ñu ne la ceeb ba. mais imaam nag sélectionné naa tib bi de. ah tib bi tib bi. <laughs> sélection bi naa ko de. Oh, moo tax njaay ni bëgg nañ. waaw yi nga ah, dagg nii yëpp nag boo ko daggee ba pare. waaw laa ilaaha illallaah yàlla boo ko dank bës ko. boo ko bësee boo ko bësee day day da koy ba mu dëgër nga ne ko ceeb. ndax da nga dellooti risaatool <laughs> moom moom laan ciip ciip mooy boo banque naan ciip ciip mun la déedéet <laughs> waaw mu toll nii fee fee la jëm waaw magasin bu magasin bu la jëm <laughs> macha am na solo kon daal yëf yi jar nay seetantal imaam awalam yaraw awalam yaraw jar nay seetantal boo gis koo xool fa mu jógee fa mu jaar yëpp ak ña ca participé yëpp. wallaay ah bu ñu boo bu ñu jëloon njëg loolu. teg ko ci bagage ya. Mhm. kon de doo ko doo ko jël. wallaay wallaay. Ah, moo tax afala soxna si sonn tamit tomb. war ngaa toog xalaat nga ne waa sonn naa indi dépense bi. waaye moom mi dugg waañ aussi tamit. Mhm. dem marché ñëw. Mhm. xool lii togg du ne dugg ci. jël ceeb ba tegal la ko wala boolu ceeb ba tegal la ko. ceeb bi daa sax xorom daa nangam ak daa nangam ak yeneen ko def. ndeysaan. Ah, man moom mosu ko sa copain Cheikh Omar Ciss. waaw eh, Omar Foutiou Ciss. mi ngi nii ci kii bi. ah na an noosi yoon maanaam ay nooskat daal nee na yow nooskat nga ni nga xamee ceeb ak tib bi waxuma xanaa man. non sens figuré la yow la bëgg wax. yaakaar naa ñëwee maa wax loolu moom. Ah, ah, xam nga man moom moom mooy man <laughs> ñu ngi koy nuyu Cheikh Omar de invité naa ko invité naa ko atadabour ba tey waaye ñëwul. ñëwul de gis wallaay ñun tam bëgg nañ la te yàlla tax nee na uhibbukum fillah daanaka <laughs> daal moom ba mu ne daara ji allah waaw noonu la doo nga daara noonu lay mel ndeysaan am na solo kon ma jaajëfal la imaam ñu tàggoo incha allah waaw buñ ñëwaatee wéyal foofu ñu yem incha allah benn hmm. problème di ñaan borom subhanahu wa taala may ñu dégg ak topp amiin yaa rabbal aalamiin wala ñu si ñooñu alquran yi amiin amiin di nuyu waale aalu waaw li nga xam ne ko jiite. Alu Daawud mooy sama gaay waaw sa gaay waaw ñu ngi leen di nuyu alxuraan yi yéeme yi macha allah ñu ngi <laughs> nuyu baax a baax nuyul ma waa club ba fële ña ca ndox ma moom leen bi ma ñëwee wéroon naa bi ma gëjee ñëw feebar yëpp dalaat na ma li <laughs> <laughs> kon dinaa ñëwaat danaa ñëwaat waaw ku ci ku ci dendakom ndox daal bay bon nga dem jàngal ku la jàngal mm-hmm. nga def sport bi ci biir ndox mi allimu abnaakum bis a war rami mm-hmm. waaw noonu yeneen ci moo ko wax ne nañu jàngal suñu njaboot Mhm. lépp luy euh, ak xeetu fet waaw xeetu waaw lu mooy aar maas mooy yëpp rek moo ngoog tiir waaw waru kubul xayil <laughs> ndeysaan ak war fas maanaam war nañ ñun kenn ku ne si ñun même boo moo mënul sax euh, war char de combat. Mhm. wala avion de guerre yi. nga mën dawal oto quand même. xam naa waa dawal oto gi moom baax na <laughs> dawal moom danaa ko nangu. <laughs> waaw char de combat jërëjëf Imaam jazakallahu xayran nuyul ma waa kër gi. dem dinañ sant nañ gërëm nañ jaajëfal baax ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ñëpp biir réew mi ak bitim réew ba beneen yoon ñu dellu si waat ci suñ jotaayu atadabbur incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy chaîne bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna